rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi leen nuyu te deen ziar baax di fas yéene indi leen ndigal loo xam ni mi ngi bàyyikoo ci sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed tey jii ji àllal ba juróom-ñeenti fan si weewu tamxarit dëppoot fukki fan ak juróom-ñett si weewu août 2021 noo ngi fii ci kanamu sëñ Moustapha Lo Bassirou di kàddu yoo xam ni sëñ Moustapha Mohamed moo ko digal ngir moo ko yëkkati jëmale ko ci mboolem taalibe yëpp nga xam ne dañoo jaayante at moom jox ko suñu bopp di déglu ndigalam waaye mu laabiyee si nag mboolem jullit yëpp kon kàddu yooyu la ñu fas yéene indi ñu bàyyi ko sëñ Moustapha Lo Bassirou mu jottali kàddu auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala raufi rahim muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi ahmad ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi fii tey ngir jottali leen ndigal lu bàyyi ko ci cheikh moustapha mohamed mbakke yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te wéral ko ci barkeb sëñ Tuubaa cheikh moustapha dafa wax ne ginnaaw ba mu jaarale ndigal li ci jëwriñam sëriñ Baara Mbakke muy jëriñu Ahibahil Khadim gi yëpp sëriñ bi dafa wax ne mi ngi digal taalibe bi yëpp yi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëriñ Touba kenn ku nekk ci nun ndigal loolu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbakke daf ko joxewoon ci gannaaw muy njàngoom xasida ak alxuraanul karim sëriñ bi nee na ndigal loolu yi dafa bëgg nu gën koo dëgëral bu baax a baax gën koo saxal gën koo feddali ba tax na wax na ne mi ngi nuy digal dale ci bisub tey bii ba faw kenn ko ci nekk bis boo xëyee taari bi bu ne kenn par kenn na kenn ku nekk jàng suratul ixlaas juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent 99 suratul falaqi 99 moom itam juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent suratul naas yi 99 juróom fukki yoon ak juróom-ñeent boo yeggalee loolu nga teg ca xasid ak sindiid benn yoon jàngeen wi nag dafa wax ne juróom-ñeent fukk yooyu ak juróom-ñeent da ngay tànn ci ñaar yi bu la soob da jiital juróom-ñeent yi teg ci juróom-ñeent fukk wala nga jiital juróom fukk teg ci juróom maanaam da ngay def 9 def 90 wala bu la neexee nga def 90 def 9 sëriñ bi nee na noonu lañ ko jàngee waaye nag yaare jàngeen yooyu te fas ci sans borom defal jàmm jullit yëpp fu ñu fa mën a nekk fas ci sans borom defal jàmm adduna sépp nee na loolu mi ngi ni koy digal kenn ku nekk nag bis bu ne da nga koy def bis bu yàlla sàkk digal na bépp taalibe bi bu aju ci moom bu muy sa buntu Serigne Touba Cheikh Moussa ne lii bis bu yàlla sàkk na ngay na ngay def loolu nee na nag mi ngi koy gën a fëddaliwaat bu baax ci Ahibahil Khadim bi nga xam ne eh, mooy jumtukaay bi muy liggéeyal Serigne Touba ci section yi ko séq ak jamaatul muridina saadiqin dongay laxasaay ak mboolem seex yi ak mboolem ansaaru diin ak mboolem diaspora bi. nee daal lii nan ko saxal kon nag bokki taalibe yi ndigal nga ko yàlla na sunu borom defal tawfiixi xosnul imtisaali te sama borom yàggal fi Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké Mohamed ci barkeb Sëñ Tuuba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi